élection yi si amee ku waroon contesté man bii la mais yàlla may nañu président Diomaye jàll may ñu président Habib Sy jàll may ñu président Cheikh Tidiane Dièye jàll kon sama jëmm amatul solo lu dul ñëw jàpp ci liggéey ñu dox ñu ne ah élection yi xaw naa jaxasoo reporté nañu coow li bëri te it may dalal xelu ñëpp ni fa ñu woon amul lu ñu ëmp ci réew mi léegi daal xale yi ne il faut ñu nettali ma lu bëree bëree bëri classement coupe d'Afrique beeg ak yeneen ak yeneen lépp yëg nañ ko. kon xamoon nañu la xew ci dëkk bi di ko suivre comme ñépp ci loolu ñu doon suivre dëkk bi jaxasoo na yéen ñëpp dégg ngeen ay waxtaan yu am naam waxtaan yu bari am na ay ndaw yu bari yónni na leen ñu ñëw ci ñun wax ndax mënuloon ñàkk damay wax ni Pastef dañu am jamono ju ñu toll boo xam ne dafa am wala dafa am benn écart diggante ñun ñi nga xam ne yàlla woon nañu ñu ko ak li ëpp militant communication jafe woon ba mënuñoo jottali li bëgg waaye ku am di nga à partir de du mois de mars 2020

am lu tegu ci fatxu Makka Makka fitna la woon ba tax mënatul nekk ñu gàddaay dem Madina Madina metti na woon ci xeer yi xare yi am yépp ci Madina la amee ba waxtaan am keroog ci Xudaybiya yonent bi alayhi salaam takk ay jëlee ma fasam ne namm naa Madina namm naa Makka dañuy aji ñew ba tim makka ba di gis les premiers bâtiments ci ben gox bu ñuy wax Hudaybiya yéefar yi takk arme ne su ngeen duggé ñu faagaagal len mu nangu signé pacte bo xamné moko moo ko jural dix ans dakal bi mu défaru ci défar ci armeem défar ci société ba kérok bu mu djublo ci makka mi ngi won ci jiite armée bu mat 10000 personnes te guerre amul